Cheikh Abdou Lahad noonu na am nay gaa yu wér yu dëggal yoo xam ne doonte dañuy dox ñëwu ñu ñëw ñaangi fii maanaam sama màggal fii depuis 1986 85 86 la ñu nekkoon di magal ak yaayam fekk ñoom ñu nekk gone euh, di dem di dem ba suñu jonn yàlla tey man nag kër kër gi employé laa woon dama doon liggéey ak ndeyam mais teguñu ma employé dañ ma teg si famille bi gis nga déjà petite sœuru ndey ji gis nga man ak moom gis nga avec la famille dañu yàgg ba léegi nag moom mu daal ñu ubbil moo soxna moom moom si boppam nee ñu man man dama leen teg comme suma ma nijaay kilifa la ñu teg lépp lépp lu nga xam ne ci organisation fii si màggal bi ah gannaaw yàlla mu teg ko suñu loxo sens bi fan la dafa jóge ci El Hadj Babacar Kebe di Ndiouga Kebe nekk taalibi sëñ Basiir am ngërëmu sëñ Basiir am ngërëmu sëñ Moustapha Basiir madame Dieng Sala nekk fii am ngërëmu sëñ Abdoulahat man mii man mi birnama na mom dafa copier yassir Ndayam à 100%, à 100%. mais nak mom dafa gën élargir parce que génération day dox muy dox ci génération actuelle mu ñew ci borom mu ñew fekkee borom jamono muy seigne euh, sëñ Mbacké seigne Saliou Mbacké bëggal ko bopom man mun naa la wax benn anecdote bu nga xam ni dem nañu si euh, sëñ Saliou dem ziyaara ko kër euh, kër gu mag euh, kër sa jumaa ji sëñ Saliou ñaanal ñu ba ñuy ñaanal mu ne ko ah fii de seen bàyyi seen lay liggéey na fii si Touba ndab baa ngi nii yéen a koy ñëw ubbi lekk si man lu ma gis man moom moo ko bi lekk moo ko bi lekk mu am ngërëmal sëñ Saliou am ngërëmal waajuram nekkoon ku tabe moom si boppam moom si boppam ba muy tuut tànk dafay daan di ketaa jëndal ma ma dem jëndi ñëw day kii mu ne ma man amatum la mu jënd am wala mu kii xa man bu man kiiwu ma lu may jënd jënd naa ko

ah ak yaayam yëpp daf ko doon moom. moom dafa nekkoon koo xam ne daf ko bëggal boppam parce que doomam bu góor moo ko doon moo doon denc soxna si sëñ bi nag bëggal ko boppam taf ko si biir bopp si boppam moom ak soxna waalo yëpp waaw sëñ bi boo ko gisee bu gisee moom yi dafay mel ni comme ku kontaan waaw du ko sax nangu bàyyi mu dem bés bi ñu demee nii taawam bi judd ni mu tuddee ko sëñ Touba. ñu dem mu ko yóbbul sëñ bi pour mu def pour mu ñaanal ko sëñ bi téye nañu foofu lu mat ñeenti waxtu nangu ñu bàyyi ñu dem ñu toog fa mu ñaanal ñu waxtaanal ñu ree kaf lépp ñuy dem mu ñaanal ñu sëñ bi moom daf ko buggoon si biir xolam waaw lépp lii mu am nii yëpp ah, yàlla ak sëñ bi ak sëñ Tuubaa la waaw parce que sëñ bi bëgg na ko ñaanal na ko iir na ko aar na ko aar njabootam bu ñu def suñu réunion ci li teural liñu wara liggéey yépp topato gan ba kenn du mer dès que ñu commencé indi nit ñi damay commencé di leen wo téléphone ku nekk mo bind la ku nekk ñaata nit ngay yobbu ma bind bind bind ba liste bi mat ma dem lu yi kaar ñu ñew duggal leen ci ñew indi leen buñu indi buñu leen indé gis ngeen fi kër gi ah bâche yi ak euh, case yi ak néeg yi mu défar yu bees ak case ak yoy yépp défar toilette yépp mettre daal pèlerins yi dans de très bonnes conditions ba nga xamné ne fi joggé di ñibi tamit dinañ xam ne que toppatoo nañ leen téral nañ leen dégg ñun tamit suñu ité yépp moy toppatoo gani duñu xol ñu ñu gis ku xif wala ku mar naan wala ku ku mar loy lek waaw ñu ngi leen di toppatoo di leen jox ñu lek di leen jox ñu nan man ce qui est cambiche hein, ak transport yeex yëpp man sama loxo la nek ça fait plus de 20 ans waaw lepp li nga xam ne que dañ koy def en groupe lañ koy def ñoo koy àndandoo def. waaw ba nga xam ne lépp dañ koy teg jaarale ko si yoon ba nga xam ne ñëpp dañuy kontaan. te moom it mu ñëw doon nu baayam doon nu yaayam di def lu baax lii muy def nii la fi yaayam daan def papaam daan ki fi def yaayam di ko fi yaayam jóge fi mu mu volontaire ni man li sama baay ak sama yaay daan def duma ko fay. mooy teraanga ci nit ñi yaatu gëm suñ Tuubaa nekk taaliba sañ Tuubaa nag satix seey ci comme ni ci baayam defoon nekk ci Baay Faal yaatu lool bëgg ñi. ubbi ay buntam woo ñëpp lu mu am bokk kaak ñëpp commencé ci ay ndeyam man yaay laa ci moom ndax maay seen caatu yaay yaayam bi ko jur man maay seen caat soxna Fass Cissé moo ñu boole jabooti ñu ñëpp moo ñu jur ñu bokk benn ndey may seen caat muy sama xarit di sama doom loolu moo tax ñu ñëw di jàpp chaque année te chaque année bu ñu ñëwee macha allah ku fi ñëw loo fi gisoon bu déwénee nga gis fi lu ko ëpp te loolu yëpp ci xolam la xam nga am ak joxe bokkul nit dina am dara même xolam mooy joxe bu lu mu am da koy séddoog nit ñi nit a ngi fi yor lu jeex te joxewu ci même da cee boole yaatu ak yëg ak gëm sëñ Touba xam ne lu mu def ci moom rek da ko koy fay sëñ Saaliwu defar ko nag ñaanal ko boole ki sëñ Saaliwu ñaanal muy lay tage muy jëkkëram moom tam jàmbaar lool jàppale ko neex dénk soxna ndax ñun ñii di ay ndeyam jox ko ko jox le jox ko ko de li mu fekkoon benn def na ko fukk di jambar lool te bu defé du gessu ginaaw te du laccé day ñëw rek di dem xam ku naan ñaata la da ngay calculer mom calculer bu day def rek te du laccé du lacc ko tu facture lool lañu xam moo tax ñu ñëw fi contane ci nak bekk ci ñun ay ndem ndax sagal nañu ndax sa dooma def li te doom yi bari fi lool ci Sénégal te defuñu ko sak la si ñun ñun ay ndayam contane nañu sagu nañu. safar